c'est comme toutes les entreprises il ce que l'on appelle le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques c'est pas bëgg presse nga nekk waroo fay impôt mais si tu as des difficultés dañ ko waxtaanee amul waxtaan c'est que aujourd'hui ce qu'il doit faire c'est nga dem déclarer si tu as un problème mais si tu te déplaces soo ñëwee dëkk c'est des gens nag en fait qui sont très intelligents hein ils pas bêtes et ci dëkk bi lañ dëkk c'est des gens yoo xam ne le soir yéenay toogandoo yéenay reerandoo yéenay naandoo ataaya soo ñëwee xam na ñu mu demee ñëwoo toog ne ils ont un problème mais yéen vous avez en fait aujourd'hui lu ngeen bëgg a jàllale ci information du ngeen ko jàllale ci information mais les informations que vous faites par rapport à ATD non ça ne fait que créer des problèmes les personnes qui sont jugées en fait les impôts sont individuels mhm. mun loo regroupé yëpp dem di négocier et ku leen promettre ne da leen effacer en fait la loi fiscale da le budget est voté au le niveau de le président Macky Sall avait avait avait fait l'exonération mais mënul nekk nu mu ko defee mais aujourd'hui ce qu'il faut faire mm -hmm. le budget est voté à l'Assemblée nationale ce sont les ce sont les députés qui peuvent voter une amnistie fiscale keneen mënu ko voter c'est pas possible maintenant l'administration peut recevoir des instructions pour examiner des situations individuelles pas en fait des situations globales parce que suñu ko defee demain mais les commerçants vont sortir pour dire amnistie fiscale donc les personnes en fait qui sont en cause dañu war a dem au niveau de l'administration fiscale dem seeti seen chef de centre seen chef de bureau de recouvrement discuter ñoom ñu leen écouter nii parce que c'est des gens qui réfléchissent su ngeen discuter ak ñoom déjà en fait ils peuvent lever le pied en attendant en fait les actes yi ngeen di mais effort fiscal bi nga l'effort fiscal si tu fais l'effort fiscal bon on sait qu'il y a beaucoup